jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen chaîne chaîne leader bi di people 221 di nuyu suñu kilifa diine suñu kilifa day mu ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi suñu borom dolli jàmm tey nag ñu fas yéene waxtaan ay ponk yoo xamante ne am na ci semaine bi bu passé polémique bi nga xam ne amoon na ci islamu catholique islam jullit warul ñaanal catholique moo juróon ay polémique yu bëri waaye ku ne gis na kii nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Cissé génn am yoo xamante ni waxoon na ko donte après tuub na jéggalu ko waaye sénégalais yu bëri aussi tamit ñaawlu ko ba waa plainte dëgmal ko ay plainte fas yéene si waxtaan nag sëriñ daam sëñ bi ngi lay nuyu di la بسم الإله قد بدحت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأعلى بدر رفع دين المصطفى في الخضر الحمد لله سي الغفران والكرم ثم السلامان عبد الخلق كل كلهم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat baax te di leen siyaara di la fayum nuyoo sëñ Abdallah am na solo sëñ daam fi may njëkkee ñu nemmeeku fan yi ay kàddu yoo xamante ni si Cissé yëkkati woon na ko euh, jëmale ko ki nga xamante ni mooy sunu borom ak alxuraan di téereem boobu sénégalais yu bari ñaaw lu ko donte après yi jéggalu na ngay borom xam-xam sa jàngat ci loolu. jërëjëf yaa Abdallah ñoo ngi am mbettelu bu baax a baax a baax ci euh, wax ju ñaaw. sëñ bi ñoo ngi am. ñoo ngi am naqar ak tiis bu baax a baax a baax si Abdallah ci wax ju yoo xam ni xamoo nan la ko sax nit war a war a waxee. Mm-hmm. ci rawatina nag ci réew moo xam ne réewum jullit la suñ réew mii nga xamante nga xamante ni réewum jullit la déggu turam sax fi mu ni day dafa dafa nekk doo xam ne day day diis si sama xol bukkuma sax di wax ci moom ngir di ko may bës waaye yaa Abdallah na la wóor ni li nga xam ne wax na ko maa ngi koy naqarlu sama xol. te di di tuubal sama boroom di ko di ko jégluwaaleel sunu borom di wax ni ab jullit nag tuub rek rek la am waaye ñoo ngi koy naqarloo fa naqare tàmbalee fa naqar tàmbalee ba fa mu yem ñoo ngi ko koy naqarloo waaye nag di ko jéggalu sunu borom mbooleem ay xataaya mbooleem sunuy xataaya ak ay waxataayaahu di ñaan sunu borom jéggal ko te jéggal na waaye si Abdallah wax ji ñoo ngi koy naqarlu bu baax a baax kàddu yooyu ndax war na ci jullit mu yëkkati ko. ah déedéet yaa Abdal Ablaye si nit naka la amee fit di jàkk dem ba ci sax asab sëriñ nga naan ko li nga wax amul xanaa nga ñëw ci biir alxuraan nga naan alxuraan lii amul loolu ban ab jullit naka la war a am fi fitu fitu toog ñu dégg ko micro muy taxaw naan li lii wérul ci alxuraan ba ñuy jàng ci eh, ci téere xam-xam yi sëriñ bi. Euh, borom Tuubaa xaadalahu lahu maxtaar la dafa wax ni ak donte sax koo xam ni dalaa féeteeg mag dafa wax loo xam ne amul bul ni ko wax nga lu amul ne ko jàppoon ni nangam wala nangam waaye bul wax mukk mukk kenn ni ko fen nga nit ñi danoo war a nit ki leen li ak réewane képp képp lay nural noonu koy naqalu suñu xol bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom mi nga am dara tëw ko mu defal ko njëggal te bañ doo topp ci ay jëfam ban taxawaay ngeen ci am yéen ñi di kilifa yi dinañ ci taxaw ci ni mu waree wax yàlla lépp dana ko bàyyeek ña nga xam ne ñoo ñoo ci suñuy kilifa amaana jullit nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam nii man nga ko euh, mbir bu amee ñett dafa am boo ko mënee faj ak sa loxo danga koy faj boo ko mënee faj ak jëf nga faj ko jëf soo ko mënul ba ko nag nga naqarlu ko sa waaye ne la wëri ci Ablaay ñett yooyu bu mu ci mën a doon bu mu ci mën a doon rek ñoo ngi ñoo ngi koy naqarlu ci li ma la waxoon léegi fa naqarlu tàmbalee ba fa mu yem rek ñoo ngi koy naqarlu ci jëf ju ñaaw a ji nga xamante ni def na ko am na solo mu nekkoon ay point yoo xamante ni mënuñ ci woon a bañ a ñëw euh, sëñ bi ñu ñëw ci wàllu ñaan fi may njëkkee mu di wàllu seet sëñ bi lan mooy seet ak ci yan anam la ñuy seetee. jërëjëf suñu Abdallah seet nag baaxoo na nit ku nekk une semaine boo dugg wala weer woo dugg wala at mu nekk nga defal ko ci benn yoon ndax nga mën a xamaat fi nga def teg sa tànk mm-hmm. ndax lu bari ci nit ñi seeni mbir dem na ba boloke ngir ñàkk ko na ngir bàyyi nekk woon goo xam ne bàyyi nekk woon nañ ko. waaye nit ki bu dee xollu nga say mbir dem ji koo xam ne am na xam-xam laa wax nag ku am man su may wax nag ku am xam rek moo ma tax wax waxuma koo xam ne day deqal ndax bu dee bu doon deqal rek képp koo xam ne am nga xel mu rafet rek a seet waaye dëgg-dëgg seet nag su ma koy wax mooy wax nit ki moom mooy kan ay di wax nit ki dama ko daan def nag waaye nag na leen wër nañ duma ne bàyyi naa ko nag waaye dana dina te lool ma koy def hmm. tuddal nit ki ñaata soxna ngay am ak di la wax ñaata at ngay dund loolu moom na leen wër yéen ñëpp mboolee ñoo ko daan defal ak ñi ko bëggoon loolu moom wàññi naa ko ba wàññi goo xam ne njort naa ni sax bàyyi moo ci topp ah, ndax dem naa ba xam ne lii gënul lenn nag bokk na ci liñ ciy woyal muy seetal nit ki xam dafa tollub diggante ne ko góor lay doon wala jigéen loolu daal bokk na ci li ñuy continuer ba tey nag ñaani ya sa toppaat ndax kii may woon yi Muhammad soxnaam dafa tollub diggante wax dëgg yàlla ñu xoolal ko fekkee lim ëmb jigéen la mu taxaw taxawaayu jigéen waaye nag dem ne ko ñaan mu mën na lu ne ginnaaw bi nag ci dañ ko war a defalaat ay ñaan moom la war a jël si nii yoo xam ni dafa bëgg a taaw doom ju góor ndax dafa amoon yéene tuddee ko yonente bi sallallahu alayhi wa ne ko na nga ci dalal sam xel te xam ne insha allah bis bu ñu si jëfandikoo da am doom ju góor daan ne ko lii maa la ko wax nag te tegal sa loxo insha allah ni ma la ko waxee noonu lay amee waaye si abdallah ci biir seet bokk na ci li ma ciy defaat mooy nit ñi nga xamante ni nit ki nga xam ne day génne kenn ma laaj ko turam ñoom ñaar seen ñaari tur tuddee leen ba wax leen li nga xamante ni moom la ñu taawluloo bu dee gën na ci ñoom su dee gënul nag ma ne leen lii gënul kat bàyyil moo gën bàyyil nag bu njëkk daal daan naa ci maslaa waaye nag fépp foo xam te ni baaxutul moom bàyyil rek ndax dafa dem ba toll foo xam ni am na ci nit ñoo xam ne bu ñu takkee dañuy dem ba yàgg seen coow coow guddi ba coow bëccëg wala kenn kay tëdd feebar loolu lépp lépp lépp nag ci biir taxawaay rek la tey wax dëgg yàlla ku nekk ñaan nga yàlla booy am soxna am soxna soo xam ne su wér lay doon soo xam ne seen biir dëppoo na bu ko defee say buntu di ubbeeku ngay am wërsëg tey am xéewal waaye am soxna soo xam ne soxna si pharmacien la loolu daanaka wax dëgg yàlla xaw naa doy waar moo tax ku mu ne nga bàyyi. Mhm. na solo mu nekkoon wàllu seet euh, sëñ bi ndaw ñu bari fi mu toll nii ñu ngi mbëkk gaal gi ndaw ñu bari ñu ngi ci naar bi amatuñ yaakaar ci dëkk bi amatuñ yaakaar ci seen bopp loo ko waral mooy tëju euh, sëñ bi nga yor secret yoo xamante ni jéggi na day trop wàllu ubbeeku. jërëjëf yaa Abdallah dinaa la may ñett te yi nga xam ne day waral tëju. képp ku ko mën nag na nga ko bàyyi ba ci njëkk nag mooy njaaloo bokk na ci li nga xam ne sangu bisub alarba dafay tëj nit kasaalika sangu bisub gaaw dafay tëj nit am na yeneen ak yeneen bu ma ci ñëwaatee te temps may na ko dinaa leen leeral ba ci biir kurus gi nga xam ne nit ñi dañ koy ràngoo te dafa bokk ci liy sabab tëju mu nekk ay mbir yoo xam ne yu bëree bëri la te nit ñi daanaka en général ñoo ko teg seen bopp nit ki war ngaa xool bu baax yaay kan xam yaay kan xam lan lan lan moo téye sa mbir ginnaaw ba xool jàlloo ubbeeku rek moo si topp ci ab nit dana tëju tëju goo xam ne ab baarim sax du sone nit ki bu ubbeekoo sa tay june daa war a gàccal sa démb waaye nit ki nga xam ne dafa tëju téléphone am sax daanaka mën naa bañ a sone mën naa xëy ba ngoon ay benn dix appel sax mooy dul du ko te loolu dëgg-dëgg ak tëju rek moo koy def wërsëg du ko dikkee fenn. waaye nag tijjeeku boo ko defee nit mooy jógee fu soree soree soreñ ñëw woole ni la woole loo xam ni yow sax tubarkàlla comme ni ma koy waxee gars yi ci biir bayra ni leen man su ma liggéeyee bayra yenn saa dinaa liggéeyal nit bayra mu xëy suba woo ma naan ma siñ daam nangam ak nangam diw woon na koo xam ne ma ko jëdee kenn xamul kañ la ma ko man bayra li ma ciy liggéey leen daal laa la mën a garanti xanaa nga ñëwaat ci man ni ma wàññil ma ko waaye bu dee nit ñi soppal la jublu la di la jox seen alal suñu ñu koo bañ loolu moom alhamdulillah d'accord am na solo ci noonu laay ñëwee ci li nga xamante ni mu di wàllu kàttan suñ daam sëy yu bari léegi tas na nit ñi mënatuñ dara via Viagra lu nekk ñi ñaa ngi koy naan wàllu kàttan yàlla suñu borom dénk la ci secret. Cheikh Abdoulaye li ma laaj dama cee sawar dama leen cee indil ay pommades comme nii ngeen ko gisee nii ma teg ko ci kanam Cheikh euh, góor ñi nga xam ne dañ daan yéeg diir bu gàtt rek ñu wàccaat. Mhm. na ngeen dalal seen xel. seerul de yomb na lool te képp ku ko jëfandikoo benn yoon lemal ubaatal ba mu jekk nga ubbi sa kamoon nga denc wala nga lem sa bulis nga wala nga ubbi sa bulis nga dugal ci. garab la gu efficace goo xam ni képp ku ko takk da nga dem dem a dem ba alhamdulilah rek ngay mujjee ba démb rek ñi ma ko joxoon maa ngi leen di taaxeeru fi mu toll nii ku ma ko jox rek boo xëyee suba da nga may woowaat. Mhm. ngir wéraay goo xam ne wér na ko nekk loo xam ne nag amul benn effet lépp rek si gàncax lañ koy liggéey. lépp ñu ngi koy liggéey ci gàncax gàncax goo xamante ni gu doy waar ku doy waar doy lay doon nit ñi nga xamante ni dañuy gaaw a daanu rek moo ko tax a jóg ak ñi nga xamante ni seen sàkkara dafa ndaw mu nekk loo xamante ni day yëkkati sidit gi yëkk dundal sidit yi ndax ñu ci bëree bëri seen sidit daa faatu moo nekk loo xam day dundal siditu nit ki aj ko ci kaw bu ko defee di jël ko comme ni ñu koy waxee képp ku ko jëfandikoo noonu nag moom fa ngay sant rek wax dëgg yàlla da nga dem. sa awra dana taxaw ku faatu nag laa ci gën a soxla ci koo xam te ni moom day yéeg rek gaa wàcc. amul effet secondaire. ah déedéet amul effet secondaire gàncax rek lañ ko liggéeyee si Abdoulaye li ci gën a noppale doo mën a wax wutal pot nga naan di diwal ci bopp bi rek diw rek rek laa la def loo. boo noppee nga ubbi waat sa kamoot nga denc si. incha allah ah, am na solo loolu de xam naa ni moom sama caméraman bi bu ñibbi dinaa ci yëpp dinaa ko ci yóbbaaleel benn soxla na ko lool. sëñ bi ma ñëw ci wàllu jaaro bi sëñ bi keroog damaa ñëw sa mm-hmm. fekk jaaro ma jël ko nga ni déet bàyyil ma la sëñ bi xanaa du jaaro rek nga ni ma lii boo ko jëlee. Euh, man ni may liggéey jaaro dafay spécial parce que nekkul ni jaaro da nga ñëw rek jël takk nit ki war nga xool bidéom xool rawaxaanam ba couleur sax ndekete sëñ bi keroog laay doog nga xam ne couleuru jaaro dañ koy seet ci yow. waaw Cheikh xam naa nit ñi danañ wax ne Sëñ Daam moom couleur weex la sax. <laughs> waaw balaa moom. <laughs> Euh, ci biir jaaro mu nekk jaar yoo xam ne mu koy liggéey mu nekk jaara yu doy nekk loo xam ne faaw danañ am du jël ci nit ki dellu ci ilmu nujuum mhm. ndax buñ fa delloo ci lan mën a xam couleur nit ki. Mhm. waaye mën a xamaaleem fi itam fa burjoom toll. waaye mën a xamaaleem itam ay mbir naka la taxawee. nga xam nit ki boo ko liggéeyale man caa xamaale itam curaayam mhm. nga xam nit ki man caa xamaale ba xam ndax ko war a takk la war a ko war a sangu la mhm. waaye ci biir loolu nag képp koo xam te ne xoolal nga ci yooyu ba jàll ci jaaro bi baa nga xam te ne takk jaaro bi rek moo ci des nit la koo xam ne bis bu ko takkee xéewal dana ko dikkee ci côté bu ne si mhm. bi ma ci liggéey nag moom benn la ci Sénégal nag moom gisaguma moroomam de maa ngi dégg boroom jaara yu bëree bëri waa Cheikh Abdallah liggéey la sa couleur si fa jox la cuuraay nga takk nga suuroo da war a takk wala da war a sangu ma wax la nga def boo ci def boo takkee wallaahi laasim xéwal dana na dikk ba nga yéemu. Mm-hmm. billaahi wal quraani al asiim te yéemu ci loolu de jaar la jaara boo xam ne jaara bu fiira fiira fiir la. Mm-hmm. wallaahi laasim yeesaa nit góoma naam si ndaam sama jaara gisatuma ko. alhamdulillah daal koy waxaat naka ngay defaat ba mën a jotaat ci ab jaaroom am na ci ñoo xam ne faaw danga leen di liggéeyalaat waaye am na ci ñoo xam ne boo leen yabalee bërëb sàngam mun fa demee mm-hmm. mu nekk loo xam ne képp ku ko ñàkk nag faw moom doo ko mën a moom moom fi yëg amatu ko moom du am jàmm faaw dana dana defaat effort am ba ba ba amaat jaaro bi. Mm-hmm. incha allah. suñu daam sekere ndomb gi moom daanaka daanaka daanaka ub na dëkk bi. Cheikh ndomba gi xam naa dama ne woon nooy bàyyi beneen yoon sax ma wax ci waaye ginnaaw tudd nga ci faaw ñu mosal leen ci dara. Mhm. Cheikh ndaw yu bëree bëree bëri ñi ngay mbëkki. Ablaye nit bépp nappkat laa wax balaa dugg ci gaal na wut ndomba gi takk képp kuy dugg ci gaal wala avion lu mu ci na wut ndomba gi takk. Mhm. bu ñëpp doon faatu yow da nga mucc incha allah te li ndomba la goo xam te ni gu yéeme la te doy waar lool ngir liggéey bi ma ci liggéey dama cee jël sama temps Cheikh Abdoulaye man duma nekk nit koo xam damay liggéeyal nit ki ndomba di ko koppeel ay téere déedéet dama koy bindal sama loxo liggéeyal ko liggéey boo xam ne tubarkal la di sant yàlla bu baax a baax nag ci wet googu ak ci yeneen wet yi waaye daal képp koo xam ne jox naa sama ndomb ba nga takk boo gis lu ci temps woo man si ndax ma mm-hmm. allah. Mm-hmm. am na solo ma ñëw ci li nga xamante ne moo di wàllu bayre sëñ daam nag bayre moom damay wax ni nit dañ ko defal bayre mu génn ñu naan ko diw diw diw diw diw diw mbooloo ma bari waaye bayre boo xam ne day ànd ak mos c'est la première fois ma gis ko ci sëriñ daam secret bayre bi. sëñ waay bayre li ma ci liggéey moo yéeme te doy waar su ma jëloon sama sang sama ndomb rek jox la bu moo neex bul takk ndomba gi rek ma la ko joxee da dox ba ñëwaat ci ndam ni ma wàññi wàññil ma bayre bi. Mm-hmm. weegaaw laa ci liggéey we nob mm-hmm. ak weegaaw laa ci liggéey képp ku ko takk da nga ñëwaat ci ndaam ne ma wàññil ma bayra bi ngir lan fooraay goo xam fooraay na ko te da nga da ngay am da ngay mus nit ñi dañ lay sopp ba nopp di la jox seen alal ci sëñ ñu koo bañ mm-hmm. incha allah mm-hmm. xam naa nag du ñàkk loo xamante ni vraiment ñu ngi may message léegi ni ma naa ko wax sëñ bi wàllu nopp damay wax ne nag nopp bari nay façon ndax nekkul ku jub rek dañ ko war a noppal waaye mën naa seede ni sëñ daam bokk nañ ci nopp yi nga xam ne da koy def muy loo xam ni fulla ak fayda ak farata moo ko tax a jub. Mhm. sëñ daam sekkere nopp bi. yii ñu toll laa wax ci nopp góor ñi nga xamante ni seeni soxna dañ leen di wan ginnaaw. Mhm. wala jigéen ñi nga xamante ni seeni borom kër dañ leen di wan ginnaaw. ñoo ko tax a jóg kum ci man a doon baax na pomat sii laa si liggéey te duma ko liggéey liggéeyal itam ku nekkul ci farata képp kuy tax du ma la ko liggéeyal ku nekk ci farata rek rek laa ci liggéey waaye billaahi wal quraanil aziimi bu ma la ko joxee 24 heures nga jëfandikoo gisoo gisoo résultat woo mën si ndax ma delloo sa xaalis 24 heures boo ko jëfandikoo gisoo ci résultat woo mën si ndax ma delloo sa xaalis lu leer laa wax boole ko garanti la incha allah ah sëñ Dame am naa mbekk ci dalal la xam naa du ñàkk xel day fàttu loo xamante ni bëggoon nga koo sànni rek te sama xel matewu ko. jërëjëf sëñ Abdallah bokk na ci muuraake mi. Mhm. am na ci góor ñoo xam ne dañoo a xaw a am complexe wu ci ci diwu. wallaay mbaadu gaa yi ni ni ma da ngaa indi ana laa bëri. ah muraake maa ngi nii de hmm. <laughs> lu doy waar doy waar nag moom nag nekk loo xam ni moom tuwar tuwar tuwarkaal wax dëgg yàlla. Hmm. man na am yéenay wax ci nag. waaye dafa fekk ko képp koo xam te ni nag bu ma raw na la moom incha allah. moom moom boo ci amee moom wax dëgg dana jug. tey da nga dem tey da nga sant yàlla bu baax a baax. waaw mm-hmm. <laughs> ah, am na solo sëñ bi xam naa ne xam nga lool. Mm-hmm. donc yaa ngi xaar. client maa ngi ñëw. Mm-hmm. ñu naan ma yow da may leen may ma rek sëñ bi moom bu ñëwee Dakar donte ñëwam Dakar bëriwul. nit ñi koy soxla day bëri du loo xam ne nii dañ ko koy ñaan pour may ñu ko rek ci ay waxtu. sëñ bi am naa mbégte dalal sa kàddu gu mujj ci émission bi. maa ngi jeexalee sama kàddu ci wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin di leen sant bu baax a baax ci jëf ju rafet ko